salaamualeykum ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant tey dafa am lu ñëwoon rek pour leeral ci boppu Sénégal yëpp ci li xew démb ci élection yi am na ay vidéo yu bari yu ñu jot ak ay photo yu bari yu ñu jot ba léegi taxul nit ñi gëm lii nii ñu bëgg a def ak càcc la sàcc moom mënut a weesu liñ gis. ay xale yi ndaw a ndaw ay mineur ñu defal leen carte d'identité ñu mën a dem voté ji xale yoo xam te ne si seen quinze ans sax matagul quinze ans sax day day bëri ci ñoom am na ñoo xam te ne xaaj ñu bay yegg foofu noonu ñu defal leen carte d'identité defal leen ci âge bu ne xool leen carte bi nekk ci xool leen carte d'identité bu baax ñu zoomoon leen ko tuuti ngeen xool date de naissance bi ñu ci def quatre vingt xale bii nii mën na judd quatre-vingt-dix-huit kanamam gi kanam gi ku ko xool kii ma na am vingt-huit ans lii rek doy na pour ñu xool ni élection yi am na ay sàcc malgré seen sàcc yooyu yëpp terewul mataluñ ñu bëggoon léegi ñoom ñu autoproclamé wu Boun Abdallah Dionne jóge fee kenn xamul fu mu jóge ñëw di joxe ay résultats li ma gën a metti résultats yi mu joxe lépp lépp boo ko boolee cent pour cent la war a yem mais dafa romb cent pour cent di dem. kon ku ne xam na ne kon lim joxe baaxul c'est pas fiable alors te ñoom Sénégal gi yëpp instant yi nii ñi ànd ak Macky ñëpp ci loolu lañ bëgg a baajoo ni Macky moo jàll premier tour dégg nañ fi France balaa dara di moom joxe na moom ba fal Macky Sall moom depuis quand la France war a mën a jox suñu résultat ñun fii est-ce que benn Sénégalais sañ na fi tey France di def élection nga toog Sénégal fii naan da ngay joxe ay résultat France donc y a des yoo xam te ne mi ngi daw ci dëkk bi ñu ngi ko doon seetaan mu muy proposé wu di law di law ba ak suñu acte nii mais il est temps mu arrêté ñun mënuñu dañoo jël indépendance et depuis lors ba léegi ñun ñu ngi dépendre ci France instant bii kii pour ñun instant yi libre nañ mais ba léegi ay jaamu France lañ te loolu noonu il est temps que mu deñ te mënut deñ ci régime bii nii régime bi fi nekk nii nii non mënut a deñ te bu ñu seetaanee ba lii nii jàll yàlla xam na ne ci mbuumu njaam googu noonu fa la ñuy dellu. dayoo sax mosuñu ci jóg parce que France moo contrôler suñu lépp donc bu mu jàmm gi ba léegi ñu ngi ci il est temps na ñu jéem a mën a jug ci loolu ñu libéré suñu bopp donc résultat yi nga xam te ni si nii jot na wadd ñu njëkkante te man sax li ma gën a metti ci mbir yi mooy tey bu Abdallah Dionne bi muy def dëkk booba moitié kii rek bu résultat yi sax génnagul woon ba sànq si suba rek ku seetaan télé am na ay résultats yoo xam te ne ñu ngi génn ndànk-ndànk yëpp matagul donc pourquoi ñoom ñu mën a gaawantu rek joxe 57 pour cent te 57 pour cent boobu noonu Boun Abdallah Dionne joxe. il y a de cela des mois ay meeru ñing joxe woon na ko fi résultat 57 pour cent yooyu noonu ku weddi vidéo baa ngi nii déglu leen. am li ma lay wax nag da nga ko jàpp naa ni minimum de voix bu muy am dina nekk 57 pour cent man maa la wax. lii leer na ñëpp te bu ngeen xoolee date bu baax di ngeen xam ne date bi juillet juillet 2018 ci la ko joxe woon 18 juillet 2018 la joxe woon résultat yi donc ñii dañoo bëri sax ay fay ñoom dañuy def yoo xamante ni seen nii dafa salte parce que genre yi nii nii dañu koy def mais duñ sax rendre compte cela veut dire que ne ñun ñu ñu diriger benn luñ def ba leeg suñu xaalis rek la ñuy wër mais non seulement ñoom yeewuñ parce que yenn fo yenn erreur yi grave yi nii nit ñu ko mën a def yow comment se fait ñoom ñu bokk ci ñoom joxe woon nañu résultat yi bien avant élection yi di ñëw 2010 lañ ko joxe ñu ñëw réglé seeni réglé jox seeni calcul nee nañ waa voilà jàll na cinquante pour cent mais c'est trop facile résultat yi fii nii ñi ñu jot ku ne xam na ne tey jii nii Macky Sall même su fekkente ne moo ne ci kanam mënut am cinquante pour cent te nag man je pense que nii ñun Sénégal il est temps que ñu yeewu nan lañ mën a yeewoo. cinq candidats yi fi nekkoon ñëpp kenn ku ne buy campagne lu muy wax su ngeen ma joxee réew bi dinaa def lii di dinaa liggéey lii donc ñoom ñëpp dañuy xëcc pour liggéey waa léegi dénk leen ma réew bi ma liggéey dafa jar di sàcc xanaa léegi lii nekkatul pour liggéey kese jox leen ma ma liggéey jaru sàcc bu bëri donc cela prouve que ni ñii buñ toggaatee tamit lu gën a pire li ñu doon def ci juróom-ñaari at yi nii loolu la ñuy def te ça se voit tey xool yi ngeen di gis xale yu ndaw yi nii fan la nga war a mën a amee carte d'identité bay voté et man sama demande même tey ñi nga xam te ne ñoo nekkoon ay mandataire ci bureau yi nii fan lañ nekkoon a moins que lii nekk bureau fictif yi ñu doon wax ndax bureau fictif yi xëy na kon peut-être que ñoom waa rek ñoo fa nekk ce qui permet que ni yi dañ mën a voté sans gêne mais bu fekkoon te ni bureau normal la parti bu ne am fa mandataire lii du fa jàll kon lii certainement bureau fictif yi lay nekk xooluma yi kanam ñii nii fan lañu war a mën a voté et le malheur que mooy ñii di xale yu ndaw yi xamuñ sax lu ñuy def fa yàlla dañ leen utiliser di leen manipuler preuve bi déglu leen vidéo bii di ñëw xale bu ndaw bi li muy wax ndaw si. yow nga ne kan moo leen defar carte d'identité. kan kan moo defar carte d'identité. ñun waaw. ah kon yéen yéen xale yi rek pour bëgg ngeen voté Macky Sall. ah léegi def ne leen ngeen indi ñeenti carte après mu neexal leen. ñaata la leen di neexal. mool sa baaraam bi. ma xool. ñu nii ruus. xale bii. kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. gis ngeen bu baax ni mu demee. dinañ see xam nga ni xale xamul dara. jël ko may ko kayitu juddu. defal ko pièce d'identité. ni ko soo mu indilee ñeenti bulletin yi nii ma jox la temps. xale yi nga xam ne boo leen diggee cent franc sax dañuy daw yàkkamte def lool ba mën ci dem jënd tàng wala jënd ci luñ fooye nga dig leen benn sob ni leen boo demee ba mu indi leen ñeenti bulletin yi nii lii dafa ñaaw dafa ñaw ci réew lii moo tax ne ñu mënuñu avancé te ñi ànd ak waa APR yëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñu ngi partout ñoom gëm nañ ni gañe nañ mais ñoom xam nañ ni affaire jaarut ci yoon bañ ne ko koo ci waxat sax danaa loolu nu ñu mën def ñi nga xam te ne noonu ne ci réseaux sociaux yi ñu ngi gis seen commentaire benn ñaar ñett ñu saaga parce que amuñu argument loolu lañ mën saaga saaga fii saaga fële xuloo fële loolu dong lañ mën parce que amuñu argument te ñun li ñuy wax dañ ci am ay preuve mu leer naañ mi ngi nii ngeen di gis li gën a yéeme nag ci affaire yi xool leen vidéo bii nii waa ji li muy def xool leen vidéo bu baax a baax a baax waa ji toog li muy def man non seulement ça je ne comprends pas moo war a mën a toog bàyyi kenn ku ne ñëw jëlal sa bopp mais moo toog ci bulletin yi di tax di def lu ko neex te regarde leen xool leen image bu baax a baax xool leen image bu baax a baax waa ji mooy jël enveloppe bi di ci dugal ay bulletins yu ko neex boo ñëwee mu jox la enveloppe bi jël ba réew saay saay bi mu yor jël bi ree àllin fi tudd bi bon fii image euh, ñoo ko xaw a dagg mais xaar leen tuuti dina dikkaat xool image bi jël na bulletin APR bi dugal na ko ci enveloppe bi dugal na ko bi mi ngi nii téye léegi góor gi taxaw war a ñëw voté xool ko tànnal na ko ay bulletin gis nga mi ngi tànn bulletin yi tànn na bulletin yi jël enveloppe bu mu dugaloon bulletin wu APR bi dèjà léegi jox na ko góor gi xoolal ma nii kii bu doon dëkk bu yoon normalement kii nii war ta fanaan këram dañ ko war a jël yóbbu ko ci yoon xoolal ma li gi ñaawteef jiit sàcc li dafa ñaaw ci dëkk boo xam te ne si nee nañ dëkku teraanga la teraanga boo xam ne lekkante la suñu biir loolu moo fi am nañ ko wax ñi ñuy def nii nit nii non c'est honteux imagine yow mi nga xam te ne yaa toog fi nga toog nii di def lii ñaata doomu sénégalais nga trahir ñaata doomu sénégalais nga trahir et bon après ñoom il s'en fout nañ leen jox benn xaalis ñu dem seen kër noos yaakaar nañ ñoom àdduna kooku rek la yem nañu xalaat ëllëg suñuy doom dañuy ñëw su suñuy sët dañuy ñëw conditions yu métti yi ñuy dund nii bu ñuy xeex certes am nañ ci benn part ñun jeunesse ñoo war a nekk avenir bi subay Sénégal mais suñuy doom dañuy dikk ñooñu ñoo gën a tax ñuy xeex suñuy ràq ñi ngi màgg di ñëw conditions yu métti yi ñu dund nii nii bëgguñu lool ñu dund ko kon xeex bii nii xeexu ñëpp la ku ne nag am nga droit far fu la neex mais mu jaar ci yoon élection yi bu jaaroon ci yoon ñu ni Macky moo gagné amul problème ñu bàyyi ko mu toog xam ni moo Sénégalais yi ñoo ko tànn mais non seulement càcc gi am na en plus ñu jékki-jékki génne seen résultat yoo xam te ne xamuñu fu mu jóge te loolu moo rafetul. mu gis nañ élément yu bëri yu jàll ci net bi ñu ñuy commenté du dëgg même gis naa sax photo xale yi ñu naan ay du Sénégal bu Nigéria la xool leen vidéo bii nii. ngeen déglu bu baax depuis quand la waa Nigéria commencé di wax wolof déglu leen vidéo bu baax. doo ko dimbali jëlal ko. cent quatre vingt cinq waaw dégg ngeen xale bi ndeysaan xamul sax li def kii mi ngi naan ko pour mu dimbali ko jëlal ko kon kii xamul sax lu muy def ngeen di comme ça lii c'est franchement lii dafa ñaaw parents yi nangu seen doom yi ñu leen di utiliser ci yii nii nii benn ñoom ci biir lañ bokk ay complice lañ ki ko sooke ba ci ñi mu jaal ñépp nga noppi bàyyi mu jàllu complice nga ci nga bokk donc lii lenn nañ ku ne xam na ni affaire jaarul ci yoon ñoo na trop donc éléments yi lañ amoon ñu lañ ko partagé ak Sénégal gi yëpp bañ jotti di ñaan képp ku seetaan vidéo bi nga partagé ko ba ñëpp jotti wasalaam